na mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey ay 65 ci suratu nahl walla wallahu anzala min as-samaa'i maa'an inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk ni ngeen xamee ñi ngi nekk nii ci fan yu mujj ca la nga xam ne mooy chahru ramadan mi ngi noonu al mubarak di fàttali ne suñu guddik tey gi sax kaamil bi ñu fi daloon ci fukki fan yi guddik tey gi lañ koy yéggale doonte ne ne taxawaayu weeru koor jubluwaay bi du wàcce kaamil bi waaye jubluwaay bi mooy taxaw ko kon bu weer yi feeñul suba it da ngay gis ne dañoo war a dajewaat ci naafila yooyu ñu ngi noonu xam naa bu dee tafsir bi moom suba incha allah lañ koy arrêté moom tafsir tafsir bi aju ci weeru koor ji kon mbokk mi ngi noonu weeru koor di ñu tàggu alhamdulilah ñu ngi war a jël tey suratu nahl donte ne it am na benn nemmeeku bi ngeen war a gis mooy avant bilal di nodd am na ay mbokk yu nekk fii ñu ngi musique bokk ñoo ñoom diine sax waaye quand même arrêté nañ musique bi dañ leen koo ñaanam ñaanuñu leen ko am na dimanche yi passé ñu nekkoon fii ci buntu jàkkee ci di def loo xam ne jàpp nañu ay jaamu yàlla lañ kenn ñemewul dem ñaan leen te ñoom ñi ngi julli ñu continuer di yuuxu suñu kaw bu ñu paree yuuxu suñu kaw loolu day wane li bor borom xam-xam yi di wax ni seytaane day li ko gënal mooy biddaa biddaa moo gënal seytaane ci la nga xam ne mooy ay bakkaar ndax ay bakkaar ñi ci nekk xam nañ lii baaxut biddaa nag da ngay ñaan yàlla dee ci loolu moom mooy problème bi su ko defee xëy na musique bi mën na jogaat loolu moom mënuñu ci dara waaye quand même différence ak ñi fi nekkoon dimanche bale mooy au moins may nañ ñu ñoom ñu julli ba pare mi ngi noonu Cheikh Ali waaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء إن
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقصني برمني والله أنزل من السماء ماء يلا ديم moo wàccee ca asamaan ndox fa axya bihi al arda bacda mawtiha mu dekkal ci suuf gannaaw ba suuf deeyee inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmaun nekk na ci lool day kawteef ñeel xeet boo xam ne dañuy dégg wa inna lakum fi l an'aami la ibara nekk na ñeel leen ci jur gi la nga xam ne mooy xalaatiin nusqiikum mimma fi butuni ñi ngi leen di nandal ca la nekk ci biiram ya min bayni fars ci diggante sibbirit sa fars mooy mbax gi boo ko xottee salte yooyu di tuuru wa damin ak ci deret labanan xaalisan nandal nañ leen meew boo xam ne bu sell la saairan lisharibin bu yomba naan lool ñeel naankat ya wa min samarat soo demee it ci meññeente ya da nga ca fekk naxiili wal anaab lii di tàndar tàndarma ak raisin tattaxiduuna minhu sakara ngeen di jël ca loolee lii di sangara wa risqan xasana ak wërsëg woo xam ne wu tedd la inna fi dalika la aayatan li qawmi yaqiluun nekk na ci loolu kawtiif ñeel xeet boo xam ne dañuy ànd ak seen xel wa awxa rabbuka ila naxl nii la sa borom wax yoo jëf jëme ca yamb an ittaxisi min aljibaali buyuta na ko yamb jàppal ci biir montagne yi ay néeg wa min alshajar ak ca garab ya wa mimma yaarishun ak ca la nga xam ne nit ñi ñoo ngi koy tàgg di ko dëkkee summa kuli min kulli samaraat gannaaw ba lekkal ci bépp meññeent fasluki subula rabbika zulula gannaaw ba tabbil nga dugg ci sa yoonu borom yi nga xam ne dañ koo tàggat yaxruju min butuniha dana génn ca biiru yamb ya sharabun muxtalifun alwaanu naan goo xam ne dana wuute ay melokaanam fiihi shifaa'un linnaas nekk na ca am paj ñeel nit ñi inna fi dalika la aayatan li qawmin yatafakkaruun nekk na ci lii kawtiif ñeel xeet boo xam ne dañuy nekk di xalaat ñu ngi noonu mbokku saar bi bi ñu koy door muy suuratu naxl waxoon nañ ne borom xam-xam yi dañ koy tuddee suuratu niam mooy saaru xéewal ndax li ci yàlla wax ci xéewal yim jëmele ci ñun waxu ko ci benn saar bokk na ci xéewal yooyu suñu borom mu ni moo wàccee ndox jëli ko kaw asamaan daadi ci dundal suuf gannaaw ba suuf deeyee nekk na ci li kawtiif ñeel ñiy dégg bokk xamal ne doomu aadama bokk na xéewal gi gën a rëy goo xam ne yàlla jagleel na ko ko mooy am ndox yaa ngi dégg naan ndox mooy source de vie scientifique yi ñi ngi sonn ci ay mars ay pluton ay planète yu nekk lan lañ fay gën a wër mooy ndox parce que xam nañ ne bu fa ndox amee rek dund am na fa mais une fois que ñu xam ne ndox amu fi rek automatiquement dund amu fa ndax suñu borom moo ne wa jaalna min al maai kulla shay'in hay depuis quatorze siècle la leen islam jiitu woon suñu borom ne lépp luy dund cosaanam mooy day jóge ci ndox kon yàlla moo wàcce ndox nga xam ne moom rek moo koy wàcce heure bu ko neexe moo koy wàcce nu mu ko neexe moo koy wàcce fu mu ko neexe mu ngi noonu léeg-léeg nga gis ne ñu ne nawetu fuuta day daf dara manqué wul waaye jolof dara amu fa tawul nga gis dëkk boo xam ne inondation ay nangam den moor nga gis dëkk yoo xam ne ñoom tawul ila axiri kon loolu ci kattanu yàlla la jalla wa ala di xéewal gu muy defal ay doomu aadama looloo tax mu jëfandikoo ñiy dégg te booy dégg da nga dégg ne ah waaye dégg naa Kaolack dafa fanaane taw démb yow mi nekk Dakar ne ah Dakar moom toq ndax dalu fi mi nga noonu ila axiri kon loolu ci kaw ci fi yàlla yi gën a màgg yi ñu ko war a santale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na saxaaba ya ca Hudaybiya mooy pacte bañ fa doon def yàlla dogal ca guddi ga mu fanaane taw bi yonent bi jiitee ba sëlmal mu ne waaw ndax xam ngeen sama borom lu mu wax bi saxaaba yi ne ko ah yàlla ak yonentam ñoo ko xam mu ne ah asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bil kawkab wa wa kafirun bi mu'minan bil kawkab mu ne sama borom day nee na sama jaam yi bi ñu xëyee am na ñu ma ca gëm weddi biddiw yi am nañu gëm biddiw yi weddi ma ca loolu mbokk ceddoog démb ak ceddoog tey dañoo yàgg a jàpp ni lii di biddiw yi dañu am influence ci xiiwulu yàlla yi ba da ngay gis intellectuel costume cravate ak lu kenn xamul jàpp ne na moom ku ku yewwu la dem jënd journal li muy jëkk a xool mooy horoscope ba defee ñu ne ko yow yaa ngi judd vingt et un mars ba quinze juin tey bul jël benn décision loo jël du baax ilaa xir daf li dof yooyu loolu it la yéefir arab yi gëmoon mooy jàppoon nañu ah biddiw tel day bañ ko gisee rek lañ xam ne taw moom day am loolu mbokk nag c'est faux suñu borom yàlla mooy wàcce taw nu mu ko neex moo tax yeneen ci bi jàngaloon ñu jullit ñi moom bu tayee ba pare lu ñuy wax mutirna bi fadlillahi wa rahmati alhamdulillah tawlu nañu ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem loolu la julit war a gëm wallahu mooy ki nga xam ni anzala min as-samaa'i ma ñaareelu xéewal bi suñu borom mu ne waaw xool leen jur gi ngeen yor giléem yi nag yi xar yi bëy yi mu ne man maa leen di nàndal ci lu nekk ci seen biir ci diggante séddurit boobu nekk ci mbax gi ak deret ji ngeen ratt génn ci meew bu weex tàll mbokk suñ caam day yeew fi aw nagam dem jël mboob am mboob wala ñax mu vert jóoral nag bi dem jël paanum ndox jóoral nag bi nag bi lekk ba suur rek sunu borom yàlla def ci weñ yi benn laboratoire boo xam ni lekk googu gannaaw ba mu ko soppee jaare la ko def def ko deret def ko deret li ci des doon ci mbàq ga laboratoire boobu moo koy jël daane koy sélectionné génne ko mu wëlbatiku doon meew boo xam ne soo ko rattee yow mu weex tàll te boo xotti woon léegi ween bi deret mooy tasaaroo bokk ndax lii kaw cëf nekku ci mu ne maa leen ci may ndox meew boo xam ne dafa set sell neexa naan lool te mooy lii gën ci lu doomu aadamay naan ci kaw suuf loolu tax xale bi bu juddoo yàlla automatiquement génne ween génne ndox ci weenu yaayam meew ci weenu waa yaayam ba médecin yi sax dañuy wax ne xale bi bu juddoo ba ba muy am 6 mois jarul ñu koy may ndox waxumaa nag lekk xale bu juddoo meew bi génne ci weenu yaayam dana ko doy pendant 6 mois jarul lekk jarul naan ndax meew rek moo mën a taxaw place su lekk ak naan boobu yëpp rasul sallallahu alayhi wasallam su ma saan lekk dara daana wax yàlla yal nag ñu ko barkeelal wa zidna xayran minhu nga dolli ñu lu ko gën waaye bu dee meewa daf naan yàlla barkeelal ñu ko wa zidna minhu nga dolli ñu ci meew moom yi mbokk loolu mooy kawteef bi yàlla subhanahu wa taala def ci jur googu meew moomu it yàlla mi ngi ñuy dig ne suñu demee àllaaxira ay dex lañ fay fekk moom meewu àdduna mi ngi génne ci salte yi nekk ci mbaq gi ak deret ci kattanu yàlla mu nekk meew amma dexi aljanna loolu moom ci defarub suñu borom la la ajoo comme ndoxum aljanna it du ndox moo xam ne dafay jóge ci ay taw loolu mbokk muy ñaareelu kawtif bu rëy bu ñu suñu borom wax ci darsu tey bi suñu demee ci ñetteelu kawtif bi borom bi mu ne xool leen ci meññeent yi ma leen defal ci kaw suuf masalan lu mel ni raisin ak lu mel ni tàndarma borom bi nee na yéen a ngi ci jël lu leen di na lu leen di mandal muy sangara ca aaya yi mi ngi wàccoon ci makka sangara araamagul te it mbokk julit xam leen ni sangara mooy li gën a neex lu nit di naan ci kaw suuf ma donc ci ci neexaay bi ci bi ci nekk dafa doon loo xam ne du ne moo gën xam ngeen li gën mooy meew ndox ak yeneen waaye sangara bànneex bànneex bi ci nekk day dem ba nit ñi mu muur seen xel moo tax ñu koy tudde xamra wala sakkaran dalay màndal xamra day muur sa xel looloo tax islam moom mujj ko xaraamal ci jullit ñi waaye démbi lislaam ñi ngi ko doon naan suñu borom mu ne génneel naa leen ci raisin ak tàndarma nu ngeen di mën a def ba defar ci sangara na am raisin boo ko jamboon nii léegi rek defar ko bàyyi ko deux jours trois jours mo fermenté wu après day nekk sangara comme tàndarma na ko noonu booba sangara aramagul waaye suñu borom mi ngi préparé nit ñi ci naka mooy yéen a ngi ciy génne sangara ak la nga xam ne mooy wërsëg wu tedd risqan xasana ca la borom xel yi jëkk a gise ni ah kon de sangara bokkul ci lu baax ndax yàlla da ngeen ci jële sangara ak ak lu baax kon sangara bokkul ci lu baax borom xel yi bari bàyyi ca mbokk sangara nga noonu baaxut baaxut santul yàlla bañ demee ba beneen jamono nag suñu borom indi nag beneen étape daa dina ah yasalunaka an alxamri walmaysir qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnas wa ismuhuma akbar min nafi min nafihima dem nañ ba jëmmi jamono saxaaba yi ak seen xel ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ndax carte ak sàngara moom julit war na ko def te boobu araamagul waaye mbokk atte yàlla yu bari dafay am lu ñu tuddee sababu nuzul mooy sabab bi tax yàlla aramal suñu borom daal di tontu yonent bi ne ko ah ñi ngi ñëw di di la laaj ci sangara ak carte mais booba arab yi dugg nañ ci naan sangara nu raw ni Sénégal yi di naane attaaya su yàlla tëbboon ne dafa xaraam rek xëy na mën na am tuuti jafe-jafe suñu borom daal di ne ah ñi ngi la koy laaj nee leen am na ci ay njëriñ waaye am na ci bakkaar waaye nag bakkaar bi ëpp njëriñ bi gis ngeen suñu borom ne leen sàngara am na njëriñ naam am na njëriñ ci ci ñoom nañ ko daan gëmee ñoom ndax ñoom dañ daan jàpp ne boo naanee sàngara da ngay am fit boo naanee sàngara da ngay tabe di joxe ñoom loolu lañ nga daan tegee ila axiri ak kii jënd it sàngara na jaay am bénéfice kon la chaque ne njëriñ mi ngi ci waaye suñu borom nag mu ne lor bi ci nekk moo ëpp njëriñ bi waaw gars yi loo xam ne nii borom xel nga dem di jëfandikoo du naan loo xam ne li mu lay lor moo ëpp li mu lay jëriñ même lii bu araamul ndax borom xel dana ko def daa borom xel du ko def beneen groupe bu bëri bàyyi ñu dem bi jëmmi jamono suñu borom daal di ne yaa ayyuha allazina amanu la taqrabu salaa wa antum suqara léegi nag ku mandeeti bu mu julli ku mandeeti bu mu julli ah muskila am parce que yow déjà boo xëyee te ji nga daal di naan naan gi mën na am balaa tisbaara mandité bi dañu tisbaar moom bu xisee ba jot xalaatoo naan ndax tisbaar daa tegaloog takkusaan ak timis kon gaa yi lu mu daan def mooy boo bàyyee ba julligee ba tuuti daal di am loo mos fanaanoo ko balaa fajar bu dañ waaye ala kulli xaal groupe bu bëri bàyyi ba mu des nag caamin yi kese suñu borom nag daal di wàcc aaya ne hee yéen julit ñi xam ne na sàngara carte ak nangam nangam sobele ci ci ci ci mbiru seytaan keroog nag la ñépp bàyyeendoo la ñépp bàyyeendoo madina gaa yi génne seen kër mbuusi sàngara yeeg bërigo sàngara yeeg tuur ko ba gan bu ñëwee day fokk daa taw ñépp julit ñépp bàyyeendoo mi ngi noonu mbokk loolu mooy sàngara fokk yàlla jaare ak moom ak lenn nga dajeeg benn waaju arabisan bu say-say buy naan ko sàngara boo ko waxee aaya yi ma la jëkk a wax ñetti aaya ci alquran yoo xam ne benn leeralu ci ne sàngara aram na waaye aaya bi ma leen mujj wax nag moo koy moom geexal na sàngara dafa aram kon loolu moo aju ci mbokk ci xéewal gi yàlla def ci raisin yi ak tàndarma yi à part sangara bi ciy génne man nga cee defar si jus yu dul jeex say naan yu dul jeex loolu di xéewalug yàlla subhanahu wa taala ñu dem ci ñeenteelu xéewal bi ñeenteelu xéewal bi suñu borom mu ne moom moo wax yoo jëmee ci yamba daaji na ko yamb ci xamal nga ko yàlla xamal ci création na nga dem ci montagne yi nga jël ci defar ci ay néeg defar ko ci kaw garab yi nit ñi it fi ñu dëkkee nga dugg fa defaral leen defar fa ay néeg soo defaree sa néeg yi ba pare nga la waay demal nag nga lekk ci bépp meññeent ci sa yoon yi lay sa borom tàggatal nga génnee la nga xam ne mooy lem suñ borom dana dana génne ci moom mooy lem nga la waay yéen ndaw ñi nga xam ne seen temps la ci ëpp yéen ngi koy def ci internet na ngeen dugg rek ngeen def la vie des abeilles ngeen xool yamb kawtee fi ci yàlla def bokk yamb dañuy gis ne bindaafon yi gën a tedd ci kaw suuf la bokk te bindaafon bu la yàlla tuddal ci alxuraan rek kawtee fi rëy ma nga ca seen dëkk dañ koy organiser mën nañoo nekk plus de cinquante mille à cent mille benn buur la ñu am mooy buur bu jigéen bi mooy la ren bu yàlla dogalee ñaari buur ren juddoondoo fokk dañuy daje xeex ba kenn rey moromam mais benn ren la ñu am ren boobu am na ay góor yuy ànd ak moom su ko defee moom ren bi mooy féetewoo di nen mën na nen plus de mille cinq cent nen par jour ba nga xamee ne nen yooyu nag mooy mujj nekk yamb yi yamb yooyu bu ñu jógee daañ séddale ko ci juróom-ñaari liggéey yu ñuy def liggéey bi mi ngi dépendre ci sa âge ñii bu ñu doog a juddu mënuñu lu dul fomp fomp ñii bu ñu demee ba ay quinze jours nag commencé am loo xam ne nii moom mën nañ ko jël di arranger am na ñeneen ñoo xam ne lan mooy seen liggéey ventilation ngir kër gi bañ a tàng gis ngeen am na ñoo xam ne lan mooy seen liggéey mooy taxawu la nga xamee ni ni mooy soldat garde la nga xam ne mooy mooy mbir bi ñeneen ñi commencé ñoom it bi ñu la génnee ñoom ñooy jël di emmagasiner ca la nga xam ne ca la ñuy war a defaree lem yeeg yooyu bu ñu demee nag ba mag ñi mag ñi jàmbaar yu dëgër yi nag ñoom ñooy génn nag di di jëli li ñuy defaral leen loolu ko suñu borom wax fas lu fii subula rabbika zulula yamb këram mën na nekk fii mu mën a dem vingt cinq kilomètres daal di fay uti la nga xam ne moom la ñuy defaree yamb yi ñëw ñoom ñëpp ñu ànd xam exactement fu ñuy jógee fu ñuy dellu ba nga xamee ne mbokk seen organisation tey communauté doomu aadama yi gën a civilisé yegguñu fi yamb yegg soo xoolee seen kër yi niñ koy defee ci wàllu géométrie def ko ay genre rond yoo xam ne multiple benn du am différence benn du am digganteeg morom ba écart loolu ñi ko man ci doomu aadama yi ñu néew a néew a néew lañu kon loolu mooy déjà tàggat gi ko yàlla def ilham bind ko ngir loolu suñu borom nag nee na mi ngi génn ci biiram loo xam ne yamb moo koy defar génne ko benn lekk goo xam ne doomu aadama mën na ko lekk ñu ngi noonu ak neexoon gaa yi diw chocolat beurre ak lu nekk ñu mënoon rek jël seen mburu di ci diw lem mooy li gën ci produit booy def suñu borom mu ne daan ci jël naan goo xam ne dafa wuute ay melokaanam te it yamb mi ngi noonu da ngay gis ñu jël plus de mille dix mille fleurs yoo xam ne ñuy nuroo defar ci façon lem bu jaune plus de dix mille fleurs defar façon lem bu xonq plus de dix mille defar façon lem bu chocolat loolu nga xam ne mooy couleur yooyu médecins yi mujj nañ sax gis gis ñu borom ne lem day faj ah couleuru lem bi dafay am façon feebar ba muy faj couleur bi mën na faj loo xam ne beneen bi du ko faj loolu ci kàttanu yàlla la suñu borom mu ne fii ci chifa borom xam-xam yi ñu ne daf ne am paje nga ca looloo tax dana faj feebar yu bëri mais suñu borom bu ci boole woon alif laam nga xam ne naan ashifa mooy faj la kon day faj feebar yépp waaye yamb mi ngi gën a faj lem mooy feebar intérieur yi rawatina lépp lu aju ci biir lépp lu aju ci ay tension lépp lu aju ci yu demee noonu moom boo xamee dose dose bi ngay bi ngay jëfandikoo lem ca garab yi yi gën a baax ca la bokk kon suñu borom nag mu ne yow mi xalaat war ngaa xalaat ci lii bokk yamb yi ku leen organiser nii kan moo leen jox njëriñ bi nga xam ne dañ koy defal doomu aadama yi ñoom loolu ñuy def lépp doomu aadama yi ñoo ko jël di ko naan yàlla def yamb yamb du yàq ay njéeréer bu ñëwoon fii lekk suñu tool yépp soccet na ko noonu mais yamb mën na nekk SM ànd cent mille mais fu ñu dem du ñu yàq fleur yi ñuy tag lañ ca soxla la ñuy jël dem doo gis mukk tool bu ñu yemb ko yàq léeg-léeg nga gisit ñuy attaqué mais fu ñu attaqué rek dañ leen a tooñ boo ñëwee tooñ leen ñu attaqué te bu ñu attaqué xeex bi ñuy xeex xeexu sacrifice la yamb bu mat rek moom day dee mais dana bàyyi ci yow loo xam ne dana wax yeneen gars yi ne suñu ennemi mi ngi ne leen ala kulli xaal mbokk yamb rek dafa doyoon kii al suñu borom mu ne xalaat mi ngi ci ñeen ñi ñi nga xam ne nii dañuy fàttali ko kon nañ ca doyloo loolu bismillah Cheikh Aliou naam
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم خبير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون barakallahu fiikum suñu borom mu ni wallahu xalaqakum summa yatawaffaakum yàlla moo leen bind gannaaw ba mu faat leen wa minkum man yuraddu ila arzalil umur am na ci ñenn ci yéen ñu ñuy delloo ba fa gën a suufe ci ak dund mooy dund gu lompañ li kay laa yaalama baada ilmin shay'a ba dana dem ba dootul xam gannaaw ba mu xamee dootul xam dara inna allaha alimun qadir sa borom yàlla nag moo des di xam des di am kattan ba faw wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq yàlla moo gënale lenn ci yéen ca la ca des ci wërsëg fama alladina fuddilu du nekk mukk ña nga xam ne dañ leen a gënale bi raaddi risqihim ala ma malakat aymaanuhum ñoo ñee nga xam ne yàlla wërsëgal nañ leen du ñu nekk mukk di delloo seen wërsëg ya te ña nga xam ne seeni jaam yu ñu moom la fahum fiihi sawa ñoo jaam ya ñu yem ñu yem képp ci wërsëg wa afa bi ni'matillahi yajhaduun amu ndax xéewalug yàlla la doomu aadama yi di weddi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaaja yàlla moo def ñeel leen ci seen bakkan yi lii di ay soxna wa jaala lakum min azwajikum banina wa xafada defal leen ci seen soxna yi ay doom defal defal leen ci it ay sët wa razaqakum min atayibat mu wërsëgal leen ci wërsëg wu teey afa bil batil yuminuun amu ndax nit ñi ay neen la ñuy gëm wa bi ni'matillahi hum yakfuruun lii di xéewalu yàlla nag ñu nekk di ko weddi mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu lenn ci xéewal yu ñu wër depuis ñu commencé saar bi ba tey jàngoon nañ ca ci fan yi passé tey ñu jàng ci ñetti xéewal yu rëy yi nga xam ne defal nañ nañ ko ñeent xéewal yu rëy yi ñu defal mu dellu siwaat nag ci ñun mu ne xam leen ne yàlla moo leen bind te loolu yéeféer yu jëkk ya amuñu ci woon benn sikki sàkk lu ñu nangu woon la mi ngi noonu ba mu des nag yéeféer yi tey ñoom dañoo gëm ne hasard moo leen bind mi ngi noonu waaye mbokk yàlla moo ñu bind yàlla it nee na moo ñuy rey mbokk dee amul raison doomu aadama lu ko rey rek bàyyi na fa moroomam am déet mi ngi noonu da ngay dem tey hôpital ñu ne ah xëy na ñuy denc daal les tuberculeux les nangam nangam ñaar fukki nit ñëw ak seen feebaru ñu dogal leen fa dafa leen même traitement diis yi dee diis yi ni di seen kër jeex na kon dee moom yàlla yàlla moo koy dogal jeex na mu ne nag am na ci yéen ñoo xam ne du ma leen gaaw a faat dama leen bàyyi ñuy dund di dund ba fa gën a suufee ci dund arzalil umur ba ko doomu aadama day dem ba dootul mën a dox doomu aadama dem ba dootul mën a jóg taxaw doomu aadama day dem ba maam pour mu toog rek dañ koy yëkkati mu toog day dem ba toogaay boobu sax dootu ko mënati mi ngi noonu sunu wolof yi di wax naan yàlla na nga dund bañ lay weer ak a wéri mi ngi noonu bu njëkk sunu maam yi dund ñu gënoon a gudd fan dañu gis xam ne daan dem ba ba bëccëgee dañ koy dañ koy jàppoo teg ci naaj bi ba naaj bi tàngal ko ñu jàppoo ko dugal ci néeg bi waaye mbokk loolu yeneen ci bi alei salaam da ko doon muslu da doon wax yàlla yàlla nag ma musal may dund ba yegg ila arzalil umur da daan ñaan yàlla ne ko matixna bi asmaina wa absarina wa quwatina ma ahyaytana yàlla yàlla nag ñu wërsëgal bàyyee ñu ñi mën a dégg di gis di am kattan fii yaa ngi ñuy dundal waaye doomu aadama wuroo ñaan ba loo def dañ la ko defal loolu doomu aadama wuru ko ñaan nga noonu dañuy gis ko dund dund at cent cent quinze cent vingt ans lal bi mu jóg mënu faa jóg lépp looy def foofu nga koy def nga nekk charge ci sa famille loolee mbokk julit yàlla mën na ko koo nattoo nag mu nekk nattu ñeel ay doomam ak i sëtam loolu it tuyaaba ñeel leen waaye bu dee ñaan moom bul bul ñaan loolu moom mi ngi noonu kon suñu borom mu ne am na ñu may delloo ba arzalil umur ba dootul xamati dara te loolu di kattanu yàlla yàlla da lay jël nga nekk ku lompañ liir bi doo ko tëdd mënul dara suñu borom di yokk kattan gi di yokk xam-xam bi dégg nga aw dégg li mu wax moo ne nangam nangam muy yokk xel bi tuuti ngay dem di dem di dem ba yegg ci sommet gannaaw ba nag retour moo des kattan gi di wàññeeku kattan gi di wàññeeku nga dem ba tëdd gannaaw ba xel mi di dem xel mi di dem ba en général ñi dem bay dund ay cent dix cent quinze dañuy dem ba dootuñu xamati dara suñu borom yàlla nag mu ne moom mooy borom xam-xam bu sax mooy borom kàttan gu sax mu lay jàngal yow ndaw kàttan gi nga am ndénkaaneeg yàlla yàlla la xam-xam bi ndénkaaneeg yàlla la profitoo ci balay dem profitoo ci balay dem la yonent bi alei salaam doon wax naan góor góor lu liir ci juróom yi bala koo juróom a remplacé bokk na ci sag ndaw balaa megeeg ñëw ndaw li nga mën ci kattan loolu say maam yi mënuñu ko sa am jot balaa ñàkk jot a ñëw ñi ngi noonu sa am am balaa ak ñàkk a ñëw sa wér balaa wéri dee ñëw sa dund balaa dee di la det lii jullit da ko war a bàyyi xel borom boobu it jàll wa ada mu ni mooy ki nga xam ne moo leen gëne la ci wàllu wërsëg mbokk wërsëg xikma yàlla la ci ay jaamam kenn mënu ko expliquer amul lenn luy joxe wërsëg bu doon doole rek kay joxe wërsëg kon koy mbër yi ñoo nekk milliardaire am déet bu doon xam-xamee joxe wërsëg les professeurs d'université kon ñu xam ne kon ñooy moom immeuble yi ak société yépp waaye ndax noonu la demee déedéet alal ji gën a ruy ci réew mi boo demee doo ca fekk ay mbër doo ca fekk ay prof université am déet bawol bawol boo xam ne turam sax mënu ko bind ngay dégg ñu naan moom moom immeuble bi moom immeuble bi moom ila axri loolu mbokk mooy réeglu yàlla ci kaw suuf xéewal la ko yàlla def sans raison sans raison da ngi noonu léegi nag suñu borom mu ne moo leen gënale ci wërsëg mu ne ndax da ngeen gis koo xam ne yàlla da koo xëpp wërsëg ba mu am ay jaam léegi nag mu ne ab ak jaamam maag yow léegi ñoo yem ci wërsëg bi ba nga xamee ni nii balaa def dara fokk jaam bi jox ko avalam mooy jox ko jox ko ndigalam ndax loolu dana am loolu la chaque ne mënta nekk donte ne ko nag ndakaaru xamul luy jaam jaam mook xar yi yeewu benn rek la woon bu jëkk suñu borom nag li ngi door misaal ci loolu ci ne yàlla mooy aji woomle ñun ñëpp ay jaamam lañu kon képp koo xam ne am na am am boobu na ko sant yàlla jaam du wërsëgal moroomu jaamam abadan loolu mi ngi noonu jaam du wërsëgal moroomu jaamam suñu borom mu ne lépp lu ngeen am ci wërsëg ci yàlla la jógee borom boobu jàll wa ala gannaaw boobu ñu waxee lii mu wëlbatiku waatit ci xéewal yim ñu defal wax nañu sànq jurgeeg ila axiri waaye mu bokk xéewal yi gën a nag rëy yi mu defal doomu aadama mu ne maa leen defal ci seen bopp ay peer ay peer ñii doon góor ñii doon jigéen gaa yi imagine leen kaw suuf bu doon tene ne ay góor rekk fi nekk góor jigéen yu salte yu bon yooyu dañoom duñ ko def problème waaye nit ku baax moom dana am problème am déet contraire bi bu doon ay jigéen kese nag naka noonu musiba la te mbokk bu ñu toogoon tey un siècle boo xam ne góor judduwul rek dee ah suuf daal di jeex am déet ñëpp dee un siècle jigéen judduwul ñëpp dee kon yàlla ci mbaaxam moo def góor ak jigéen walbatu ko def seen diggante mawaddatan wa rahma góor bëgg jigéen jigéen bëgg góor ñu jàppalante loolee di harmonie boo xam ne képp koo xam ne am na xel wallahi da ngay gis ne loolu rek mooy li normal gannaaw ba nag ba mu ñu mayee ay góor ak jigéen a pare mu wërsëgal ñu nag ay doom benn couple la ngi ni ñoom ñaar doom ak seen néeg ñu dem dem dem dem nga xool fa jaaraat fa tukki ñëw fii ak 10 ans ñëw moon la juróom-ñaari doom yépp moo leen jur fan la jóge lu ci yàlla la jóge yàlla moom may lu ñu ay doom doom yooyu nekk ay xéewal gannaaw ba doom yooyu jur yeneeni doom muy ay sët comme lam bégee la woon ibrahim alayhi salaam daa ji ne soxna sa basharnaha bi ishaq wa min warai ishaq yanqub da nga am doom da nga am sët loolu gis doomu aadama bu mën a tiim lu jege téeméeri nit téeméeri nit comme ni mu dale woon anas ibnu malik yonent bi moo ko ñaanaloon yaatal wërsëgam guddal fanam barkeel njabootam ñu ne anas daana tiim téeméeri nit yoo xam ne ñii ay doomam lañ ñii ay sëtam lañ ñépp ci moom lañ saq ko téeméer yaa ngi dégg loolu it da ngay gis ne am nañu yàlla may lu mel noonu sa sama benn koo xam ne soriwuñu lool trente cinq doom la am doom yi nag xaw ma ñaata lañu am mi ngi noonu ala kulli xaal loolu xéewal ak yàlla la su ko defee doom yooyu nga xam ne ci àdduna mën nañ laa jëriñ taxawu la ci seen kattan ci seen wërsëg ci seen i pexe sëdd it naka noonu loolee mbokk da ngay gis xiiwal la goo xam ne kenn doo nga ko mën a def muy suñu borom yàlla jàll wa ala bi nga xam ne moo ne may xool ko ma neex ma jox ko doom yi jigéen ku ma neex ma jox koy góor ku ma neex ma jaxaseel ko ku ma neex ma xañ la man ngaa dem tous les cliniques du monde réunis mun a fexe ba am doom lii it mbokk moo tax suñu borom yàlla ne ma ndax nit ñi dañuy gëm ak neen di gëm keneen moo leen di defal di sant keneen ku dul yàlla bàyyi borom bi nga xam ne nag mooy borom xéewal yi mi ngi noonu yow jurit moom doo ci bokk mukk bismillah
ويعبد ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا رجلا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه فمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا بل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبدر لا يقدر على شيء وهو دل على مولاه وهو دل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير فليستقيم ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم barakallahu fikum suñu borom mu ni wa ya'buduna min dunillah nit ñi nag ñi ngi wëlbatiku di jaamu gannaaw yàlla ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'a ñoo xam ne moomaluñ leen wërsëg ci lu jóge asamaan wala lu jóge suuf ci lenn lu mën a doon wala yastati'un ca amuñu kàttan sax ci di leen wërsëgal fala tadribu lillahi al-amsal ay waay bu leen dóoral yàlla ay misaal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla mooy aji xam yéen nekku leen di xam dara daraba allahu masalan yàlla ngi leen dóoral benn misaal abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in jaam boo xam ne dañ koo moom amul kàttan ci dara wa man razaqnaahu minna rizqan xasana ak koo xam ne dañ koo wërsëgal ci lu bawoo ci ñun wërsëg woo xam ne wërsëg wu rafet la wu baax fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra mu nekk di ca dépensé ci secret di ca dépensé ci lu feeñ hal yastawuun ama ndax ñaar ñi ñoo yem alhamdulillah boolem cant ñeel na yàlla bal aktaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nekkuñu di xam wa daraba allahu masala yàllaa ngi dóori beneen misaal rajulayni ahaduhuma abkam ñaari góor ngi kenn ka daa muuma laa yaqdiru ala cheyin ca amul kattan ci dara wa huwa kallun ala mawlaahu mu wëlbati ko nekk ab yen nekk charge ca ka nga xam ne moo ko féetewoo mi kilifaam ga aynama yuwajjihu laa yaati bi xayr fu mu ko mën a yónni jubale du ko indil mukk benn yiw hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl ndax dana yem ak ki nga xam ne nii dafay digle lu baax wa huwa ala siratin mustaqim ca moom mi ngi ci kaw yoon boo xam ne wu jub la mi ngi noonu mbokk suñu borom kon mu ni xéewal yi yépp moo ko defal doomu aadama moo bind doomu aadama bindal ko soxna bindal ko jëkkër bindal ko ay doom ak i sët waaye la ëpp ci ñoom ñi ngi jaamu leneen lu dul yàlla ca ñooñu ñuy jaamu day moomu lu ñu leen benn wërsëg buy jóge asamaan te benn wërsëg buy jóge suuf non seulement joxuñu leen ko waaye mënuñu mënuñu ko sax ca loolu it mbokk li ëpp ci doomu aadama yi mooy sëñ diw bi ma yaakaar li ëpp ci doomu aadama yi mooy jërëjëfe sëñ diw loolu mbokk da ngay gis ne ah ay musiba la yoo xam ne nii kenn mënu koo xam ci ay musiba am nañu benn ku siiw Sénégal ci wàllu bu nekk yàlla may na ko milliard ku bokk ñi fi gën a kawe mu ne nag gars yi kaay leen ma wax leen sama secret sama secret mooy lan mooy su ma waxee juróom-ñaari jërëjëfe sëñ diw rek bal ba tàkk na bokk loolu yi ñu koy dégg yi ñëpp a koy dégg kooku di wax ak sunu jeunesse bi nekk xalif général des mbalaxkat renommé international lan lay jàngal jeunesse bi kaay leen sama secret de réussite mooy lan ndax mooy dama naan ya allah ya rahman waaye projet ba mën a dugg lu ma yaakaar juróom-ñaari jërëjëf sëñ diw rek bal ba tàkk na bokk loolu c'est très grave suñu borom nag nee na mi ngi nii man yàlla maa bind man yàlla may wërsëgal teewul ñuy jaamu keneen ba ñuy sant sant keneen suñu borom subhanahu wa taala ni eewaay bu leen dóoral yàlla ay misaal yàlla xam ci xamu leen mu indi nag misaalu ki yaakaar ki ngeen ko dul yàlla mooy da ngay xool benn jaam jaam bu sañul mënul boo xam ne amul benn kattan mi ngi jaam la ba pare tëdd daal di daal di tëdd paralysé mu ne ndax kii dana yem ak koo xam ne yàlla yaatal wërsëgam mu koy joxe guddi di ko joxe bëccëg ci lu lëndëm ah ci ci lu nëbb ak lu feeñ ndax ñaar ñi yem nañu yemuñu kon cant yépp ñeel na yàlla ca loolu mooy yàllaa ngi ci doon misaal moom boppam jalla wa ala ak ñi ñu koy bokkaaleel bokk ñi ñu koy bokkaaleel ay xërëm lañu ay bàmmeel lañu ay lu mën a doon boo leen doon woo ba ila yawmi diin non seulement duñu la wuyu buñ la déggoon buñ la déggoon it mënuñu laa xettali amma suñu borom mooy kiy wàcce xéewalam ci ay jaamam ci guddi ci bëccëg à toute heure à tout instant ba fi nga toog xéewalu yàlla mi ngi bees ci yow moo tax yàlla ne julit day moom daa war a sax ci alhamdulillah mbokk nga la waay melal noonu alhamdulillah bi la yàlla bindee melal la nim la melal alhamdulillah yàlla wërsëgal na la soxna alhamdulillah ci njaboot gi alhamdulillah ci wërsëg wi alhamdulillah ci wér gi yaram gi lu mu mën a doon alhamdulillah mi ngi noonu alhamdulillah yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na tamlaul misa misaan julit bi wax alhamdulillah mu jóge ci xolam mu yëg ne mboolemi xéewal ci yàlla la jógee ku mel noonu tuyaaba jox ko ci yàlla yi fay moo gën a diis balance yi ñuy peser bi su penc mi ngi noonu borom bi indi beneen misaal nee na misaal bi moom ñaari góor lañu benn góor bi daa muuma amul kattan nekk charge ci kilifaam ndax kii dana yem ak ki nga xam ne moom yàlla may na ko xam-xam muy woo nit ñi di leen waar di leen teg ci yoonu njëb ndax ñi daañu yem déedéet kookin mbokk mooy misaalu yàlla ak niñ koy bokkaaleeg ñi ñuy bokkaaleeg yàlla lan lañ digle ci lu baax lan lañ tere ci lu bon amma suñu borom yàlla mooy ki teete ay jaamam lii baax na lii baaxul lii dalay lor lii dalay jëriñ teg leen ci ala siratul mustaqim lii bokk kon mooy ñaari misaal yooyu nga xam ne suñu borom yàlla mi ngi koy dóoral ñeel ñi nga xam ne nii ñooy borom xel yi kon mi ngi noonu Cheikh Ali
ولله غيب السماوات والأرض وما أمسى إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من دونهم ولكن لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
barakallahu fiikum suñu borom mu ne walillahi xaybu samawati wal ard ñeel na yàlla lii di kumpa bi nekk ci asamaan yi ak suuf wa ma amru saa nekkul mbiri bisu penc illa ka lamxil basar lu dul lu mel ne xefe xippi bu bët di def aw huwa aqrab wala mu gën a jege sax xefet xepi inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla day bépp mbir mooy ka ca am kàttan wallahu axrajakum min butuni ummahatikum yàlla moo leen génnee seen biiru yaay ya laa taalamuuna shay'a xamu leen dara wa jaala lakum alsama wal absaar mu defal leen ak dégg defal leen ay gis wal afida defal leen ay xol laallakum tashkuruun ngir ngeen doon ñi sant seen boroom alam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama ama ndax nit ñi xooluñu jëm ca picc ya nga xam ne dañ leen a tàggat ci jaww ji ci kaw asamaan yi maa yumsikuhunna illa allah ñoom de kenn jàpp leen ku dul yàlla inna fi zalika la ayatin li qawmi yuminuun nekk na ci lool day ay kawtéef ñeel xeet boo xam ne ni dañuy gëm mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne lii di kumpa ci kaw asamaan ak suuf moom rek moo ko xam looloo tax ba ngalawayu julit xamal ne bokk na kuy jéem a diir mbagg borom bi ki jàpp ne moom xam na kumpa jaamu yàlla yi kooku moom la muy def te moom jéggi dayo mu des kan mooy ki nga xam ne moom daa sol dàllam jëm ci moom jëree kooku xamal ko kumpa moom lañ leen waxoon ci démb wala barki démb rasul sallallahu alayhi wasallam ne man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad képp ko dem ci ab seetkat la doon pettaaw géndal gisaani horoscope waaw carte voyante lépp lu lay wax ëllëg nga dem mu wax la dara nga gëm ko mu ne kooku weddi nga alquran mi ngi noonu jëmmi dem fa rek dana la xañ ñeen fukki fan kenn du nangu sa julli loolee kon la jullit war a gëm lu waral loolu mbokk kumpa yàlla rek mooy ki nga xam yàlla rek mooy ki nga xam su ko defee jullit du ko sàkku ji ci keneen waaye léegi nag luy pexe man kat fat cam mi bëgg naa koo takk ci xawma ndax moom baax na ci manam déet mi ngi noonu ndax damay dem cekkee na ko neexal ko mu istixaaral ma ko defal ma nangam déedéet yonent bi alei salaam dañ cey joxat benn solution dene kenn ci yéen ki bëgg a dugg ci mbir ak mbir ma lu mu mën a doon nee na julil ñaari rakk julit bu jógee julli ñaari rakk ubbil na ko bunti boroomam mu ne nag gannaaw ba nga ne yàlla maa ngi lay tànnloo ci sa xam-xam bi di la dogalloo ci sa kattan gi di la ñaan ci sa ngëneel yi yàlla yow yaa xam man xawma yàlla yaa man man mënuma yàlla yow yaay ki xam kumpa di nga noonu fàccam mi ma bëgg a takk yàlla bu dee ne su ma ko takkee dana baax ci sama adduna dana baax ci sama allaxira yàlla nag ma ko yombalal yàlla nag ma ko barkeelal mi ngi noonu waaye bu dee ne yàlla kii su ma ko takkee du baax sama adduna du baax sama allaxira yàlla nag ma ko soril génn ci sama xel ca wuutalal ma ku ko gën mu ndox gaa yi xoolal dog gi ak ñaan gu matale gi daañ ko jënde dem gis benn forox caaye bu jël fi benn pajaas luye fi benn pantre ñu koy rang ñi dem mu naan da leen di wax seen avenir ah mbokk loolu toonkat yi gis ngeen ni leen yàlla di réerale loolu da ngeen ko war a jàng rasul sallallahu alayhi wasallam da ko doon jàngal sahaaba yi nim leen doon jàngale saari alquran yi ngeen jàngal ko seen njaboot yi mi ngi noonu yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam di la dogalloo ci sa kattan di la ñaan ci say ngëneel yow yaa xam man xawma yaa man man mënuma ca yow yaa xam kumpa oto bii ma bëgg a jënd tukki bii ma bëgg a dem examen bii ma bëgg a def lu mu mën a doon ci biir àdduna nga ne yàlla bu dee ni dana gën ci sama adduna ak sama alaxira yombalal ma ko barkeelal ma ko bu dul gën sama adduna ak sama alaxira soril ma ko te dogalal ma lu gën fu mu mën a nekk ci gërëm loo ma ko mbokk lii la jullit di war a def suñu borom mu ne moom moo xam kumpa léegi nag bisu penc naka lay demee yéeféer yi ne ay milliards yu tasaaroo doon pëndëx ay jaxasoog suuf ñii naan dañ leen di dekkal borom bi mu ne noonu mu leen yéeme day noonu la yombe ci man dekkal milliards yi jaam yooyee yombe na ci man ni xefe xippi yombe ci yéen ma gaa yi xam ngeen doomu aadama li ko gën a yomb mooy xefe xippi day da fi nga toog nii ba mën na la filmer sa bopp fi nga toog plus de dix mille fois xef xef nga fi xippi bala ngaa génn jàkka ci mu ne nag xefe xippi ni mu yombe ci yéen dekkal jaam yi noonu la gën a yombe ci man jeex na noonu la gën a yombe ci man mbokk suñu borom dara tëwu ko ci lépp loo xam ne da ko bëgg a def mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ni mooy ki am kattan ci lu mu mën a doon maa ngi la koy wax sànq ci ñaanu istixaara yàlla yaay borom kattan yàlla yaay borom kumpa inna allaha ala kulli shay'in qadir loolu tax nga naan yàlla lii bu gënul soril ma ko te dogalal ma lu gën mi ngi noonu borom bi dellu siwaat ngir jaam yi gëm ko doyloo ko mu ñuy fàttali lu sori mooy ay yow suñ sow fàttalikul bis sa borom yàlla moo la génne sa biiru yaay ca mbokkoo xëy na jigéen juy wasin gis ko sax du yomb waaye xoolal xar yi wasin boo ko xoolal doom bi fi muy génnee ak bopp doom bi ni muy toll ak la fa nekk ci ay yax mais bu demee ba rawasin suñu borom day écarté yax yi dilaté la nga xam ne nii mooy bunt bi ba mu génn loolu ci kattanu yàlla moo tax borom bi wax ci abasa summa sabila yassara summa sabila yassara loolu yàlla moo ko yombal kon yow yàlla la yombal génne la sa biiru yaay yàlla moomu la fa génne dana la ma sa génne waat ci suuf borom bi mu ne biñ lay génne xamoo dara dama aadama bi nga ñëw ci kaw suuf xamoo dara yàlla may la ngay dégg te dégg la doomu aadama jëkk a def dégg dana commencé ci biiru doomu aadama bu nekk sa biiru yaay ngay commencé di dégg boo demee ba def appel une semaine suñu borom ubbi say bët nga commencé di xool au fur et à mesure ngay màgg nag yàlla di la may xol may xel nga dema dem ba xam lu bari waaw léegi suñu borom nga ne li tax ma defee leen lii mooy ngir ngeen sant ma man rek lan mooy sant yàlla mooy jaamu ko bañ koo bokkaale ak dara képp kuy kuy bokkaale ak yàlla santul yàlla sant yàlla mooy taxaw ci ay ndigalam bàyyi ay tereem xam ne luy xéewal ci moom dong la jógee moo tax borom bi ne i'malu ala daawuda shukra jëf leen ak sant waxtu julli jot nga jóg di julli loolu mooy sant yàlla te waxtu woowee koor nga woor loolu mooy sant yàlla sant yàlla ci alal génn ci zakat dimbali ci say mbokk ila axiri mooy la ngiree ngeen sant suñu borom yàlla wëlbati ko waat di wax ak bokkaalekat yi nga xam ne doyloowuñu seen borom mu ne waa xanaa nit ñi seetluwuñu te la nga xam ne mooy picc yi nekk ci kaw asamaan bi di naaw kan moo leen téye yàlla kese moo leen téye te na am boo génnoon jàkk ji léegi rek gis ay picc yu naaw loolu lu jaaxle la ñuy naaw di tourner ci lii gis ko li ñuy def ku leen téye yàlla waaye mu am lu gën a yéeme mbokk boo demoon Saint-Louis am na lu ñu tuddee parc de Djoudj parc boo xam ne fële picc yi daje picc yooyu day am picc yoo xam ni dañ leen di bàggee day am ay ay ay jaaru ñu leen takkal fan lañ jógee yii ñu ngi jógee Angleterre yii ñu ngi jógee France yii ñu ngi jógee des fois Amérique traversé océan bi mbokk picc moo xam ne à peine ay cent grammes lay pesé am autonomie plus de six mille kilomètres mu naaw ko sans arrêt sans arrêt am point précis bu mu jógee ñëw point précis def fi lim fi def delluwaat point précis loo xam ne avion yi gën a sophistiqué sax ah picc yooyu ñoo leen raw da nga ciy gis lu scientifique yi di jaaxle mooy trajet boobu ñuy def ñoom nu ñuy nelawee duñu lekk duñu naan noonu ñu leen di bàggee am na ñu ci jàpp masalan Angleterre pesé leen ñu gis ne mën nañ def tey deux cent grammes mais bu ñu ñëwee parc Djoudj ñooñu ña fa nekk jàpp picc yi pesé leen à peine ay cent et quelques grammes lay la ñuy pesé mais tout ce trajet ñi ngi nekk ci kaw asamaan bi kan moo leen téye suñu borom mu ne maa yumsikuhunna ila rahman fii mu ne maa yumsikuhunna ila allah loolu nag yàlla mi ngi ñu ci jàngal ay yow doomu aadama yàlla mi sàgganiwul picc yooyu may leen kàttan googu yow julit boo wékkoo ci yàlla ndax yàlla du la doy ndax yàlla du la sàmm nam sàmm picc boobee moo tax yonent bi alei salaam doon wax naan cey bu ngeen doyloo woon yàlla dëgg dëgg doyloo dana leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc picc amul magasin amul sàq amul dara day yor ay doomam xëy rek acca bismillah dem wëri balaa ñëw dana lekk ba suur indi lu mu lekkal njabootam ba baa dundam di jeex lii moo tax yonent bi alei salaam wax ñu loolu almuhim bokk julit xéewalu yàlla yi julit da nga koo war a yëg dañ cee war a sant yàlla da nga cee war a doyloo yàlla xam ni dara mënul yëgsi ci yow lu dul lu jóge ci yàlla dara mënula koo xañ lu dul lu jóge ci yàlla yàlla moomu nga doyloo doyloo woon ba nga nekkee si biiru yaay woowoo kenn soxlawoo kenn moo la fa fekk la nekk ci yow yëpp mu defal la ko soo génnee it boo ko doyloo lépp loo aajowoo dana la ko defal ëllëg nga dajeeg moom àllaaxira mu tàbbal la ci àjjana yu kawe ya yàlla yàlla defal ñu loolu defal ko bépp julit mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñii liggéey fi ñu defere sàngara toolu raisin raisin liggéey raisin lu dagan la liggéey raisin lu dagan la liggéey tàndarma lu dagan la li yonent bi alayhi salaam doon tere kay mooy bu jëkk da nga daan gis ñoo xam ni seen toolu raisin bu ñoree duñ ko wit duñ ko jaay dañuy bàyyi ba mu dem bay waaj a nëpp bu ko defee ñiy defar sàngara ñoom tool yooyu moo leen gënal mu ne nag képp ko bàyyi toolam jëmlu ci jaay ko ñooy defar sàngara loolee moom ñoom ñoo bokk bakkaar waaye raisin moom dagan na julit bay ko dagan na julit jaay ko ndax loolu bokk na ci xéewal yi gën a rëy yu ñu yàlla wax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam
sàcc fa xaalis mais maire bi jël xaalis am mu ne ma foog moo yóbbu ci génn leen léegi comme ni yàlla wax ku dem ci génn 40 jours yàlla ko nangu léegi man toujours boobu dem naa léegi wane mu ci la yaa ko jël kat waaw ñi ñuy def waaw la waaw mu ne moom dañoo nekk ci benn place ñu ne léegi maire bi ñu sàcc xaalisam mu ne yéen ñëpp da ngeen dem ci géndel gi nee na moom comme xam ne na jëlu ko moo tax mu dem ci géndel ga waaw loolu moom dañuy wax rek yàlla na yàlla jéggal leen ndax yaa ngi ci namoon dàq tuuma waaye yow en tant que julit yooyu doo ci dugg moom daal dafa dafa ji ñu sàcc nee ko man du ma dem ci géndel dem ci géndel dafa xaram soo bëggee nag nañ dem police soo bëggee nañ dem waaye géndal moom du ma ci dem jëluma sa alal du ma dem géndal loolu daal moom la mooy la la la gënoon a war wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam zakatul fitre waaw ndax su ma génnee zakatul fitre mën naa ko jox sama mbokk bu jege sa mbokk bu jege kay moo ci gën a yey sa mbokk boobu bu dee ne aajo woona moom li ñuy bañ nga jox ko rek sa waajur sa doom sa soxna waaye ku dul sa waajur du sa doom du sa soxna m- m- moo gën a yey nga jox ko zakatul fitre bu dee sa mbokk la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ah waaw mënees na koo génne tey naam waaw bismillah waaw waaw waaw waaw waaw lu tax mu ne waa ji ne ko dañu jam ñoom dañu nekkoon ci tukki waaw waaw boobu waa jàkk ji dañu julli ba pare xanaa ah d'accord d'accord d'accord d'accord waaw mooy euh, daf ne dañoo ñëw ci jàkka ji fekk jàkka ji julli nañ ba pare léegi benn mbokk bi na ko kaa ñu ànd mbooloo julli euh, mu ne ko déedéet imam ñu julli ku nekk julli boppam wala ñu dellu ca kër ga daal di julli wala ku li xaal mbokk loolu ko waa ji wax ay gisunu borom xam-xam la yonent bi alayhi salaam daf ñu daan tere ñu taxawal ñaari mbooloo ci jàkka waaye ñaari mbooloo ci jàkka jooje bi mu ko waxee ñi nga xam ne ñoom dañoo gis gisin boobu rek dañ ne su mbooloo jàkka bu jullee ba pare beneen mbooloo wuru fi am borom xam-xam yi gisit ne aha kay ña nga xam ne dañoo tardé ñëw bu ñu nekkoon mbooloo it nekkul loo xam ne lu ñuy tere dañ naan bi charte mooy bi charte mooy waa ji du ñëw taxaw fi imam taxawoon mu mel ne mbooloo bu bees la ñaareel bi it ñoom du ñoo ko tey mbir la boo xam ne dafa tombe loolu bu dee dafa tombe loolu bañu ñu ko su ko defee ñoom bu ñu dëppoo woon ci loolu def ko nañ xam loolu ñu def lu baax la julli ñaari nit wala ñett nit moo gën julli kenn nit waaye nag bu dee jàkk boo xam ne bu ñu ko fa defee mu jur fitna la gën mooy ñu dem seen kër julli fa mbooloo ndax loolu yonent bi waxoon la chaque ne day am man gis naa benn jàkk boo xam ne ñaari imam la ñuy def imam bi taxaw fii mbooloo mi nekk ci gannaaw yor seen i jaas ak seen i yat beneen imam taxaw fee mbooloo mi ki yor seen jaas ak seen i yat bokk loolu moom xam ngeen yonent bi da koo tere ñépp ñoo xam ni dañoo jàpp ne imam doyu leen dañuy bàyyi ba imam pare ñoom ñi ñoo des seen mbooloo ñoo ñit amuñu julli mais ña nga xam ne loolu lépp du seen jubluwaay dañoo ñëw rek doon daf si mbooloo mi par fekk imam sëlmal na bu ñu defee mbooloo loolu islam du bañ loolu mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam Hmm.
léegi ak am na lay doon man si tam doon lay mën na doon seen laaj koo xam ne jigéenu jullit bu doon njaaloo ak ab yéeféer waaw mbokk jigéenu jullit du suyeeg yéeféer jigéenu jullit bu doon njaaloo ak ab yéeféer loolu la ñuy wax su ko defee ñu xam ne loolu ab sëy amul foofu léegi dañ doon njaaloo doom yooyu nga xam ne am nañ ko ca dañuy gis ne doomi yaay la ko islam di considéré mooy seen yaay la ñuy considéré mais bàyyi ba amul ak ñoom benn rapport même bu doon julit la même bu doon julit la ci sëy ba légalul da ngay gis ne doom yi duñ donn seen bàyyi su ko defee doom yooyu duñu donn seen bàyyi mi ngi noonu ndax l'islam reconnaître ne kooko bàyyam la dañoo reconnaître doomu julit moo demoon di njaaloo ne doon jaaloo chrétien wala moom jaaloon julit mais daal da doon jaaloo bu am ca njaboot njaboot googu nag moom lañ koy féetaleel ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw waaleykum salaam kooku mi day laaj ñu ne dafa mosaan ak ay xaritam ñu dem fii ci benn seen gannaaw fii ba ci seen digg ci ñoom biñ julee ba benn mu daal di ne leen ñu leen di lii la julee waaye man sama crise li may topp gaaw a julee noonu moo tax man mu julee noonu muy laaj ndax moom bu dematee ba war naa man julee ko war
waala kulli xaal xëy na julit moom bu amee ne lii la yonent bi doon def waaye suma kilifa diw lii lay def man li kilifa diw def laay def loolu moom wax dëgg yàlla mbir la bu jéggi dayoo suñu borom mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana julit buy roy yonent bi lay roy yowmal qiyaama kenn du la laaj imaamu malik kenn du la laaj shafii kenn du la laaj buxaari kenn du la laaj imam xaas xasan saar kenn du la laaj xam nga ku ñu lay laaj ar rasul salallahu alayhi wa sallam jeex na kon yonent bi alayhi salatu wasalaam kenn du juyoog moom ci waxi kum mën a doon abdullah ibnu omar nekk na di waaraat mu wax benn masala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam benn waay na ko ah mu ne man day toogoon naa abubakar ne nangam ak nangam mu ne bisimilah jàmm xanaa di ngeen bëgg yàlla tawal ay xeer jege ko asamaan mu faagaagal ñu nan ngay dégg ma ne rasulullah nee na ngay wul bi ko naan ma abubakar wala omar nee na loolu mbokk kon jum te mënul passé loolu wallahu alam waaw mbokk bi dafa doon yëkkati waaw waaleykum salaam waaw waa ji nga xam ne juddu na du wax du dégg dañuy seet ndax looli topp na ko ba moom ah waarateeg lislaam yëggul ci moom ki waarateeg lislaam yëggul ci moom lañ ci sunna nettali mooy yowmal qiyaama yàlla da leen di dajale ñi judd woon dof ñu judd woon nekk muuma te message de l'islam yeggul ci ñoom maa ngi insister message de l'islam yeggul ci ñoom léegi muuma yi dañuy jàng bay bind ay téere mi nga noonu gis ngeen euh, am na muuma yi daje fii chaque euh, mois ah, ci jàkk ji fii góor ak jigéen di jàngalante seen biir seen diine macha allah créé nañ fi sax indi fi benn ndox ci koor gi yàlla na yàlla fay leen kon mais nag am na ay muuma yoo xam ne ñoom amuñu chance boobu donc yu bëri mënuñu ko comprendre ñu mel noonu yowmal qiyaama la yàlla di yónni ci ñoom yonent ñi nga xam ne xam-xamam démbam ba wóoroon na ko ne ñii buñ daje woon ak yonent ci àdduna dañuy gëm ñoom dañuy gëm àllaaxira dem aljanna ñi yàlla xamoon ci ñoom bu daje woon ak waar ci kat dañuy weddi dañuy weddi dem safara ci loolu la ñu mën a wax ci loolu mbokk julit yaakaar na waaw ñu dëgg mujj ci mbokk bi rek ñu mujj ci mbokk bi rek bisimilah waaw waaw waaw non julli fay faat ay rakk yu ñuy julli yoo xam ne julli yi nga faat ci adab yépp boo ko jullee yàlla baal la lépp loolee mbokk ay nit rek ñoo ko sos te bañ ko sosee sax yàggul waaye yu leen ci bekk saxaabaam mosuñu xam jullik fay faat loolu amul mbokk jullit loolu amul ay nit ñu bëgg a dajale ci ay caaxaan ñoom ñoo woote loolu salaatu tasbiix salaatu tasbiix borom xam-xam yi dañoo wuute ci ne julli la gu wér am julli la gu wér gu wérul loolu moo amoon ca téere ya ndax wér nag wérul ca la gën a not mooy julli ga wérul mu des nag ndax yi julli ga même bu wérul ndax mas nañ gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala kenn ci ay sahabaam wala kenn ci kilifa yi diine yi def ay imaamu Malik ak génération yi nekk seen gannaaw ku mas a organiser ne kaay la ñu julli fay faat man la jàpp naa Sénégal laa ko mas a dégg man ngaa dox planète terre Sénégal ngay déggee ñiy dajale ay oto ay kenn xamul des centaines góor ak jigéen nga lu lan dañuy salaatu tasbih Sénégal la am Sénégal nag lépp fi la am yàlla na yàlla defal ñu afiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain